jërë ngeen jëf mbokk yi ñi seetaan ci wasaare lamb grand combat ngi noonu journée Mouniang production drapeau Papa Ndiaye Aïda Mboup mu dox ci diggante Moustique bu école de lutte Jëmboori ak Boy Sine bu Rock énergie arbitre bi sifflé na Boy Sine moo leen wan ginnaaw ngemboo ngemb lu weex jiital tànk càmmoñ Moustique mooleen leen wan kanam mbokk yi moom ngeen jàkkaar lool noonu mu sànni benn morso bu xonq léegi ma ngay leetoo ñoom ñaar booy siin moustique moustique ñoom ñaar ku ci nekk garde normal la booy siin moo xaw a tuuti waaye moustique moo ëpp taxawaay ña ngay leetoo booy siin sànni na léegi booy siin ak moustique Moustique dafa mel ni fi mu toll nii waaj na pour dem Boy siin Moustique Boy Sine mu ngi def ay déplacement am joxañaat na léegi sànniwaat na léegi benn pied gauche moom Boy Sine Moustique di ko déglu Boy sànniwaat na Boy Sine Moustique Boy Sine Moustique Moustique sànni na dalul ay cokkaas lañuy ñuy def ñoom ñaar booy Sine tibb na suuf Boy Sine Moustique Boy Sine daw na Moustique jël na tànk ba ña xeex Moustique jël na tànk Boy Sine Boy Sine bañ na Moustique Boy Sine Boy Sine añ na ko Moustique bañ na Boy Sine Moustique ña xeex gàllaaj ya dagg na Boy Sine dóoraat na ña xeex Boy Sine Moustique war na ko ndomba daan na ko Moustique daan na Boy Sine Moustique daan na Boy Sine Moustique doon daan na Boy Sine hey lamb ay Moustique daan na Boy Sine Moustique daan na Boy Sine